bismillah fii nii ak daara yàllaaw sali baqa abi bi fiq yàllaaw yaa man lawal amru yaa man laa sharika lahu wasi wa li fiq yàllaaw وجاتك اليوم يا رمان منتجيا خذي بما ستوفي دنياك يا الله أزاري مراسي أيو برامتي ألا ألاقي الدر منك يا الله رحمتي ألا أولا يدر أن منك يا الله مليك يميني وأقل بزار يا مليك بلا إسان بن بيجو دين منك يا الله خدست سري يا قدوس متليا عني وعن كرادي تدار يا الله أنت سلام ياسي سلمت كل يوم ويا بنفسي بيتي منك يا الله أنت سلام ياسي سلمت كل يوم ويا بنفسي بيتي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 ñu fas yéene liggéeyal Serigne Touba ñoo ngi nii ci suba ba léegi ñoo ngi xëy di nekk ci ndékki yi ah, di waajal eh, añ yeeg yëpp pour murid yi xewlu ci lañ fas yéene sant Serigne Touba daal. bis bi daal xanaa di ko yëg sama xol di sedd ci Serigne Touba rek di gën di sant Serigne Touba di sant Serigne Touba bu wér daal moom lañu ñu bis bi. waaw taalibe di wax dëgg yàlla jàpp nañ ci bis bi ñoom ndaxte ñun ñuy joxe. ñoo ngi sant bu baax ndaxte taalibe yaa ngi ñëw di ñëw ñuy xewlu bu baax a baax a baax ñu ngi leen di jox ndékki ñu ngi si beeg boisson beeg lépp mu ngi dox ak ndox mi ñëpp a ngi koy dox ñu ngi koy waa ñoo ngi tudd may sa ñu ngi waaw kii de nongal ma fa Bachir la dañ koy wax Dame Diop waa daayira Soxna Jaara Touba Okas xidmatul xadim daayira Soxna Jaara Touba Okas ñoo nekk fii di di xidmal sëriñ bi xalaa bi dañoo xam ne mu yi xër nañ xër goo xam ne lépp la ñuy indi añ yi dina ñëw ndox mi dina ñëw lépp ñu xalaat ne murid yi nga xam ne dëkk fa sori maanaam bu ñëwee suba teel gi ak yu mel noonu nee na maanaam ndékki dina fi xaw a jafe moo waraloon ñu xalaat ne ñun lépp li nga xam ne moom lañuy moom la ñuy toppatoo la jëm ci wàllu ndékki ak ndox maanaam ngir murid yi nga xam ne ñu ñooy teel a ñëw ci kàttanu yàlla ndekkil nag wax yàlla def nañ ko ni ni mu waree ndax ndugg nañ ci ndugg mu am solo macha allah. defar nañ daal mën naa la 2570 70 defar nañ ko 2570 ñu ko defar na ci lu tolloo ko benn nag ak euh, juróom-ñaar fukki ak juróom ci lañ ko defaree waaw. dëgg yàlla fi ma wax yow nii moom maanaam mbooloom foo jàpp ne dugg ñu fa dugg nañ fa ba fii may wax yow nii depuis 7 heures du ba léegi ñu ngi séddale ba yaakaar na léegi 11 heures jot ñu ngi séddale te noppeegul ndax euh, jàpp nañ ne daare kaamil ak biir jumaa jaak mboolam baas yi ko wër yëpp dugg nañ fa di séddale waaw ah, lépp rek ci xéewali sëñ Tuubaa yi soxna Ndeye Galas mu sëñ Abdou Karim Mbacke Falilu borom Makarima lax la ñu ngi ci ndekki ba tey ñu ngi ci saafu pombiteer bi depuis si suba 6 heures du matin ba tey ñoo ngi ci kawam te pareeguñu ñu ngi togg soos pour ba tey eggale ndekki yi kawe na sunu njortu lool ndax lim bi ñu waxoon bi ñu ñëwee fekk nañ fi loo xamante ne lu ñu yéem la ba dañoo mujj dem dolliwaat lépp loo xamante ne lu ñuy jëfandikoo la rek dañ koo dem sàkku jiwaat ñu ngir indi ko pour mën a matali li nga xamante ne ci lañ nekk pour ndékkee suñ fa jógee ñu ngi dem si wàllu añ yi ak euh, wàllu fruits yi café gi ak meew beeg lépp berne rek moo ko tax a jóg comme ni ko sëñ Mountakha bëggee ñu fas yéene ànd ak moom ci li nga xamante ne mooy ndigal li ànd koog moom di berneel jaam yi ba keroog mu ñuy yeewi ñu dellu ci sunuy kër mhm, di santaat di santaat Serigne bu baax a baax nag di ko ñaanal moom sëñ Mountakha Bassirou mu yàgg fi te wéer loolu ak njabootu sëñ Basiru bi yëpp di ñaanal nag sama wasila sama yaakaar tey ak ëllëg Cheikh Abdoul Karim Mbacké Fallilou di ko ñaanal mu yàgg te wéer ak njabootu sëñ Fallou gi yëpp ak ñëpp di leen sant di leen gërëm bu baax a baax di ñaan nag seen télé bi jëm ci kanam ci kaw ci lu baax ci darajey Cheikh Mouhamadou Fadal barke maam Cheikh Rahima Fall Modou Afe Diaw lañ koy wax taalibib sëñ Touba ñun waa daayira Soxna Jaara bu marché Ocass ñoo ñëwoon doon feeñal suñu yéene ci liggéeyub sëñ Mountakha ndax euh, Serigne Mountakha moom liggéey liggéey wa wan wanate nañu aw yoon woo xam ne si ne nee naa li li li ñu def tey mës sa am ci yoonu murit maanaam toog ba mu yàgg ñu jàpp benn bis di ci di ci di ci di ci di ci sant sëñ Touba di ci jàng xasida yi sëñ Touba yi lii tey la masa am ni mu amee nii tey la ko sëñ Mountakha masa wootee nii te moom moo ko masa woote te gëw ma sax danaa man ndax bis bi dafa rëy bis bi dafa làmmoog ay ngëneel yu rëy rëy rëy bis bisu pajuk aajo la bu ko kenn jàppee bisu ñëw di waxtaan wala coowaloo déedéet bis bi bisi faj aajo la nañ ci fas li ñu bëgg bis bi lu mu lu ci waay bëgg bu ko ci fasee suñ tubaa dana ko defal man de biir na ma ne bis bi waxuma la doomu aadama waaye adduna bépp mën nañ cee am ndimbal adduna bépp nag laa la wax mën nañoo am ndimbal ci bis bi nga xam si ne mooy bis bi ñu delloo njukkal Serigne Touba ndax sëriñ bi dañoo defal lu ñu ndey mënalut bàyyi mënaluñu kon ñun bis bi rek lañ am maanaam daal lépp lu waay daan def ci màggal loo yor war nga koo def ci bis bi ndax bis bi moom mooy bis bis boo xam si dañ koo tànnal Serigne Touba di ko ci màggal di ko ci kañ kon ñun ñëpp war nañoo maase luñ def rek doyut maam loo def ba foog ne doy na rek doyut ndax sëriñ bi moom munu su koo fay ndax lim ñu liggéeyal ñun taalibe Sëriñ Tuubaa yi lim ñu liggéeyal munuñ koo fay ci àdduna ñax naa kay di di wane sunu sant di wane ne lu ñu am rek jëmmam ji la bi la lu ñu am rek moom la kon nag ñun lu ñu lu am rek dañ ko war a delloo njukkal sant sëriñ bi rek comme ni ko sëriñ Muntaxa di di ñu ko digale rek ci lañ bëgg a nekk dan ñi ngi siyaare ñëpp nag tey jéggulu xam ne dañoo wut wax waaye buñ mëne woon wax dana gën a yaat di sant nag waa daayira bi yëpp gis nañ seen taxawaay gis nañ eh, seenub liggéey ci ci liggéey bi gis nañ kenn ku nekk pëstéef bi nga am ndax yaakaar naa ñaari fan yoo xam si ne démb yaakaar naa kenn nelaw dañ ne duñ nelaw te liggéeyuñ liggéey bi ba mu jeex ñu ci def ko ba ni ko sëriñ bi bëggee rek ñu doog a dem ñibbi seen i kër kon loolu ak cant la ñu ngi ciy sant ñëpp di ñaan lépp lu lu ci waay fas daal sëñ Tuubaa defal la ko na ko bëggee ñoo ngi ci yaar ñëpp tey jégalu ñëpp jërëjëf. أيوب برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أزاري ملاسي أيوب برامتي ألا ألاقي درا أن منك يا الله مليك يميني وعقل بزار يا مليك